التحية سلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام السلام عليكم nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi sant yàlla. nee ñu ngi sant yàlla. di nee di julli ci sangam bindee fi sallallahu alayhi wa jaajëfal xaadim rasul. nee di nuyu mbooleem ñi fi fekk. nee di nuyu mbooleem ñi fi fekk. beral nuyoo nag sëriñ xaadim mii. nee di beral nuyoo nag sëriñ xaadim mii. mu indi ndax nee na lii ko indi ci moom. kennal xaadim rasul. nee na kennal gum kennal xaadim rasul. nee barki démb rek. maa ngi wax ne ko dégg naa sa waxtaan woo xam ne. nee mi ngi ko wax naa dégg naa sa woo xam ni. bàyyi naa ci xel. nee mu ne ko bàyyi naa ci xel bu baax. ndax ni ñuy tudd di tudd ku baax ki. ni ñuy tudd di baax ki. lii seen jàppale sëriñ bi. lii doon jàppale sëriñ Tuubaa. mooy fexe ba ku la gis. mooy fexe ba ku la gis. du yëpp sëñ bi ci yow du yow sëñ bi ci yow rek. du yëpp sëñ bi ci yow rek. muy aw melo. muy melo. ak wax. ak wax jëf. te nee ca noonu lu nee loolu la xam sëñ Xaadim mii. booy ndax nee na booy seede. da seede loo xam ni. da koy sukkandiku ci alxuraan. da bàyyi xel la daal. nee ku bàyyi xel la daal. sëñ Xaadim. sëñ ko ñaanal nag. nee di ko ñaanal nag. yàlla bàyyi ko fi. ndax euh, jàmbaar la. ndax jàmbaar la. taalube la. ab taalube la. ku am pas-pas la. ku am pas-pas la. ku xam boppam la nee ku xam boppam la it. te liñ naan euh, gëm sa bopp. liñ naan gëm sa bopp. loolu baaxul. loolu baaxul. nit day xam boppam rek. nit day xam boppam rek. xam fi mu doon. xam fi mu doon. ak lim doon. ak lim doon. ak war a def. ak li mu war a def. ak li mu a war a def. moo tax ñu bi nee ñu ngi koy ñaanal. barke sëñ Fallou. nee ci barkeb sëñ Fallou. barke Cheikh Mamadou boole ci sëñ Fallou. nee na barke Cheikh Mamadou Lamine mu ñu boole ci sëñ Fallou. yàlla bàyyi ko fi. yàlla sunu borom bàyyi ko fi. ba yéeneem àgg. ba yéeneem àgg. di bo di dénkit sama bokki taalibe yi. nee di dénkit bokki taalibeem yi. ñu tënku ci ak jub. nee ñu tënku ci ak jub. di jaamu yàlla. di jaamu yàlla. te xam ne suñu sëriñ. te xam ne suñu sëriñ. jaamu yàlla. tegoon na ci bakkanam. jaamu yàlla tegoon na ci bakkanam. kon nag ku aju ci kooku. kon nag képp ku aju ci kooku. waroo koo sàggane. waroo koo sàggane. mi ngi ñaan ci barke Sëñ Fallou. nee mi ngi ñaan ci barke sañ Fallou. lii doon ay ati at. lii doon ay ati at. at mu ñëw rek. at mu ñëw rek. dàq moom ren mii. dàq moom gi nag waxuñu ci ay bernde. dàq gi nag waxuñu ko ci ay bernde. waxuñu ko it ci maanaam xoy-xoy. waxuñu ko ci ay xoy-xoy. li ñu koy wax mooy rek. li ñu koy waxee mooy rek. suñ pas-pas gën a yokku. suñ pas-pas gën a yokku. suñu ak suñu fan rek. ndax ku fi yàggul kat. doo fi def dara. doo fi def kon yàlla nañ fi yàgg ñun. kon yàlla nañ fi yàgg ñun ñëpp. wasalaamaaleykum rahmatullah ah dégg ngeen kàddu yooyu am solo yooyu tukkee ci sëriñ jëm si ci mbooloo mi jërëjëf Mbacke. amiin la ko déwén rek. maam kenn laaj ak njaboot rek ndax man nee na sëriñ bi kenn la ci njaboot gi. man kenn la ci moom mii kenn la ci njabootam ndaxte. sëñ Moodu mii. ak Mourtala. ñoom ñëpp ne moom moom yem ci këram. nee na kon mi ngi lay sant rek. nee di la ñaanal nga gudd fan lool. te wér lool. ëpp sa waajur yu baax yi yaaw ne nee daanaka nag mënuñu cee wax. ndax sëñ Baara moom. mooy kilifa kër gi kon moom tey yow mii ka jaay suñu kilifa fii. li ñuy ñaan suñ kilifa dañ lay ñaanal moo ngi njabootam gépp suñ boroom yàggal leen fi wéral leen ne barki suñu waajur bu baax ba ak suñ maam ju baax ja jërëjëf jëf